عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق nga nekk Cheikh te nga nekk fii tey ci biir bâche bi maa ngi nuyu si képp kuy autorité te di jiital nuyoo boobu madame la maire Aïssatou Ndiaye di nuyu aussi euh, monsieur le préfet du département de Kaolack et di représenté bi son adjoint di nuyu aussi euh, le sous-préfet ak mbooloo mbooleem délégation yi nga xamante ne dégg naa leen fii tey autorité ñoo leen yónnee donc maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant donc sëriñ bi ñu ngi lay ziarewaat bu baax a baax ci turu monsieur le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye sa xarit sa wóllare moom moo ñu yebal fii tey ma ànd ak délégation bu mag mun naa si tudd ku mel na Aïssatou Niang mu nekk chargé de mission du ministère de l'intérieur maa ngi ànd ak aussi Ali Ka mu nekk aussi chargé de mission du ministère de l'intérieur monsieur ministre moo ñu wax ne nañ ko fi teewal tey lu mu xat sa bés bésam la yow wala réew ay xarit ngeen wax na ma lu bëri bëri seen diggante donc sa bés lu mu xat-xat bu ko mën a teew aussi nag dina fi yónnee délégation ndax depuis démb ba léegi mu ngi def ay tournée jógee ay Sédhiou jógee fa dem Linguère recevoir aussi madame le ministre des femmes tey mu ngi woon ci journée nationale du nettoyage bi nga xam ne président Macky Sall moom moo ko lancé. ci le 4 janvier bi ñu génni woo képp kuy citoyen képp kuy patriote ak képp kuy doomu réew mi pour que fexe ba Sénégal bokk wala nekk dëkk bu gën set ci biir Afrique jàpp naa nag woote boobu sëriñ bi ah kilifa diine yi ak taalibe yi ñoom ñoo ko moom ndax bu ñu nee ñu ne set kenn mënul jaamu yàlla te setoo foog nga set sa yaram foog aussi environnement bi la wër mu set donc président la République su wootee woote boobu jàpp naa ne eh, nitu diine yi la ko wooteel te ñoom ñoo si war a jiitu ak mbokku taalibe yi tey nag woote boobu la ministre bi wuy ji Linguère mobiliser képp kuy doomu Linguère tey ci la ñu yenn ci nettoyage boobu loolu moo ko empêché waaye bu nekk loolu calendrier bu chargé sa bés moom may déplacé wu ñëwal ci boppam ñëw fi avant bés bi wala ñëw fi nii si guddi gi wala ñëw fi avant bés après bés bi waaye nee na ma lu mu xat-xat naa mobiliser ministère bi nga xamante ne des chargés de mission yi nekk si ministère bi ma ànd ak ñoom ñu ñëw fii tawal ko fii pour feddali kóllëre bi nga xamante ne doo doxoon na seen diggante jëm te teewaay boobu nag man dem si santaat yàlla bu baax sëñ bi ndax damay wax ne man taalibe Baay Ñas laa ma nekk si biir cabinet donc taalibe Baay Ñas bi ñu yónnee ci biir Kossy yi damay wax ne sama amoon tayam tey monsieur le ministre dama koy tey waaye tey boobu nag ah, dayoo njigam sëñ bi yow laa koy dénk yow ak mbooleem borom xam-xam yi fi nekk ak muxaddam yi ñu ñaanal monsieur le ministre de l'intérieur Aly Ndiaye di confiance ak considération bi nga xamante ne monsieur le président am na ko ci moom boo dénk ko département ministre de l' intérieur yàlla may ko ci ndam yàlla may ko ci succès te am nañu yaakaar bu baax sa ñaan boo ko ñaanal na ko nangu ndax fii ci Kossy yi fii la ñuy wax ne mooy tàmbali cosaanu faydu mi donc fii la lépp tàmbali donc am nañu yaakaar bu baax ci suuf su tedd si ak si jëmm bu tedd bi ak mbooloo mi fi teew ak sëñ bu ñu ñaanee yàlla mën naa def yàlla may ko ndam ci ministère bi nga xam ni yor na ko mais yàlla may aussi président euh, succès ci plan bi nga xamante ni indi loon Sénégalais yi mooy le plan Sénégal émergent te mun a daxanci nag lu bëri bëri da nga xamante ne ci secteur boo jël rek indi na ci ay programme yoo xamante ne euh, boo ko nit ñi jàppale Sénégal dina développé incha allah donc sin bi ñu ngi delluwaat aussi di leen jaale suñu mbokk taalibe bi nga xamante ne ay euh, waayu ñëw nañu fekk ko si biir këram boom ko boom ñaaw te mu gàddaay ay mbokkam gàddaay ay dëkkam ñëw fii dëkk ci biir Médina Baye ngir yaakaar ak cofeel yu mu am ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ñu fekk ci biir këram def ko jëf ji ñu ci def loolu képp kuy jullit ak kuy patriote mu koy naxarlu ndax Médina Baye dafa am rôle bu ama am solo bi mu joué ci diplomatie ci diggante Sénégal ak des États-Unis ndax tey boo demee Amérique université yi fa gën a mag ñu ngi fay jàngalee Medina Baye ñu fay jàngalee li jëm si dundu Maolana Cheikh Ibrahima Niass te Baye def na joué ci rôle bu am am solo ci biir Afrique ak ci biir monde bi ci diplomatie Sénégal donc xew-xew boobu honoré wul réew mi te lu ci ministre bi wax ci mesures yi nga xamante ne aussi jël nañ ko jàpp naa ne mun naa ci bañ a ربنا